ba taux bi ñu ngi cinquante virgule cinquante pour cent maanaam ñaari candidat yoo jël kenn moom moo ci am ñi nga xam ne ñoo am ñu ngi nekk soixante dix huit mille deux cent quarante six candidats ñaareel nga xam ne ñoo jàll ci bac bi boo ko xoolee bu baax ci ñetti at yi nga xam ne dañ ko ci lañ jógee résultat yi dafay mel ni kuy xaw a wàññeeku tuuti

beneen bi ci topp mooy ñi ñi def ba dafay am ñetti catégorie ñetti pàcc ñoo xam ne ci école publique la ñuy jànge mooy école état bi am ñoo xam ne ci école privée la ñuy jànge ñu jàpp ne école publique yi ba léegi fi ñuy wax ni Sénégal en 2024 ñoom ñuy jiitu toujours ci résultat fac école privée yi door ci topp bi ci topp mooy série yi xam ngeen ni fukki série ak juróom-ñett moo fi am série yi nga xam ne moo ci gën a baax ay résultat mooy série l série bi nga xam ne moom la résultat bi gën a ñàkk baax mooy série L AR beneen bi ci topp mooy Sénégal dañu am bagu franco-arabe maanaam doomu daara dañuy gën a dugg ci école yi di ñëw di def bac franco-arabe ñu gis nañ na ñoom seen résultat ren dafa baax lool surtout ñi nga xam ne dañ ciy def affaire scientifique mooy ñu di def ay mag mag ay SVT ak yu mel noonu booy xool nag ren ci bac bi académie Dakar moom mooy premier moom mooy jiitu ci fukki académie ak juróom benn yooyu ñu teg ci euh, matam teg ci tëngéej académie yi nga xam ne ñoom ñoo mujjee mooy kaffrine mooy kédougou mooy kolda waaye nag bu dee da nga xam ne da nga jël rek li ñuy woowee région sénégal yooyu région yooyu fukki région la ak ñeent mooy dakar kaffrine diourbel ak yooyu ci fukki région ak ñeent yooyu région bi nga xam ne moo ci gën a baax ay résultat bac mooy région de matam moo jël premier pas ci ren euh, ren au Sénégal région de euh, Dakar euh, topp ci région de Diourbel topp ci région yi nga xam ne ñoom ñoo ci mooy Kaffrine Kédougou ak Kolda bi ci topp mooy bu ñu xoolee Sénégal dañuy def bac depuis ba ñu amee indépendance muy juróom-benn fukki at ak ñeent ci ren dañuy gis ne résultat yu baax yi ñu amoon ba ñuy door a jël indépendance mooy entre 1960 ak 1969. ba léegi mënuñu amaat résultat yooyu affaire yi day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc donc loolu dafa wane ne war nañ mën a toog di réfléchir est-ce que suñu bac bi ni ñu koy defee depuis 1960 ci indépendance loolu lañ ko war a continuer di ko di ko defee ñi nga xam ne ñoo toll ci dem université mooy ñi am entre fukki at ak juróom-benn ak ñaar fukki at ak juróom-benn loolu boo ko xoolee entre ñi am fukki at ak juróom-benn ak ñaar fukki at ak juróom-benn Sénégal boo leen jëlee fukk ak juróom-ñaar ñoo ci nekk université xam ngeen ne loolu lim bu ndaw maanaam tey boo tegoon fii fukki sénégalais yoo xam ne ay jeunes lañ toll nañ ci jàng dem université ñi ciy dem université bu matee ñaar ci lañ yem donc am na ci juróom-ñett yoo xam ne ñoom demuñu université bi ci topp mooy dañu xool nag élèves yi di part du établissement yeeg yooyu élèves yi la maanaam élèves yi nga xam ne am nañ bac yëpp soixante dix huit mille deux cent quarante six xam ngeen ne bari nañ ñu xool kan ñan ñoo ci raw ñan ñoo ci ëpp moyen maanaam ñan ñooy paye bi def classement bi génn ci fukk ñi nga xam ne ñoom ñoo raw fukk ñooñu nag ki nga xam ne moom moo ci raw am moyenne 17 virgule 85 moom moo tudd Lauriane Ingrid Senghor bu lycée d'excellence de Diourbel ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des bokk ci meilleur élève Sénégal bu bac en tout cas ñooñu ñu ngi ci document bi nga xam ne jox nañu leen ko di ngeen ko mën a euh, exploiter ci lycée yi foofu dañu def trois classement classement bu njëkk bi mooy dañu xool ban lycée ban école moo ëppale ñu fa am bac rek ëppale nag ñu am bac tekkul ne yow yaa yaay premier voilà foofu par exemple lycée Limamou Laye moom moo ëppale ay élèves yoo xam ni euh, dañu am bac rek beneen bi ci topp dañu ne mais bu ñu xoolee lycée yi y en a mille deux cent ñoo xam ne ñoom ñoo présenté ay candidats rek ngeen loolu bari na ñu ne mais ñooñu ñëpp ñan ñoo ci gën a baax ay résultats ñu ne dañuy def ñaari classement classement bu njëkk bi daf ci am école yoo xam ne école yu ndaw lañ bariwuñu ay candidat parce que seen candidat matul saw ñu ne ñoow ñooñu nañ leen bett parce que boo leen boolee ak ñi nga xam ne dañu bari ay candidat peut-être que classement bi du boo leen jëlee am na ci juróom ñoo xam ne ñoom ñëpp peut-être sax ëpp na ko mais ñun ci juróom ñoo xam ne ñoom ñëpp 100 pour cent la ñu am ñoom ñëpp seen candidat yëpp ñoom ñoo am par fi ñuy terminer nag mooy cent 1210 école ñoo présenté ay candidats Sénégal boo boolee public ak privé. ñu ne ñooñu ban école moo ci gën a résultat bac ci 2024 ñu école boo xam ne ngi tudd école 100 présenté plus de 100 candidats moom moo am les meilleurs résultats au bac au Sénégal cette année mu am yeneen ñaari information yoo xam ne ci fukki école nga Sénégal am na ci école par exemple deuxième école bi nga xam ne mooy ñëw après euh, Mikado mooy école Notre-Dame troisième école bi mooy Notre-Dame du Liban. ci fukki école yooyu nga xam ne ñoom ñoo raw ci bac Sénégal benn école rek moo ci nekk école publique wala benn école rek moo ci nekk école boo xam ne école état la te élèves yi fay dem fay école boobu nag mooy le lycée Djignaki de Bignona donc ñoom ñooy septième ci classement national mais puisque ñoom ñett ñoo ci école publique la meilleure école publique du Sénégal 2024 ci résultat ba